nan la fas yéene waxtaan ak ñun ci wasaare làmb kaay nee na loxo bi day métti xoolal liñ ko fekk buy def kaay koy alastero loxo bi de léeg loxo bi day métti sam waa ji siyaar naa la de naka la yéen jàmm de garaaw naka mu na jaay jaay joo garaaw naka mu jaajëf gaay naka la gaay de la moo la dal ci loxo loxo bi dóor yi métti. dóor ya. <laughs> dóor yi ma ko dóor moom métti moo métti sama loxo bi fii nag ma gaañu nag. waaw. dem non non dama ci médecin de ah. ah, ah, bi la métti douleur bi la rek. Hmm. Hmm. ah baax na. douleur bi la rek. toog fas yéene wax ak champion bi. mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon ñu ngi fii ci géejawaay kër Fils de Balla seet si ko mu toog ak ay xaritam. ay njaga ñaaleem gis ngeen ko band loxo bi bandi bandilu ndam neex na dem bër ndam neex na kañ loo ko jëndee jar na ko mais ginnaaw buñ sant yàlla julli ci yonent bi sant sama waajur bu baax a baax di sant sama papa bu baax ak sama yaay di gërëm sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel di ko sant bu baax di ko santaat sëriñ Moussa Nawel ne ko Mbàkke ñaan yi yegsi na gis naa taxawaay bi waaw dem nañ Tuubaa mu dalal ñu ñaanal ñu bu baax di ko sant ak ñoom sëñ Xaadim sëñ Abu sëñ Moussaïn sëñ Fallou ñoom ñëpp sëñ Axma maa leen di sant bu baax di bëggee tamit sama waa koñ waaxamoo quatre tamit sama gars yi fi toog xam ne loolu dañ leen ko ci làmb ji nañ ci làmb ji lool sant naa leen bu baax a baax aw ma seen fay di sant ñëpp euh, Fils damay ñëw dellu ginnaaw tuut avant combat bi dañu hmm. jékki-jékki ñu ne combat bi des na lu mat une semaine wala deux semaines wala quinze jours li waroon def promotion lamb ji mooy presse bi ñëw jël si Fils de Balla Fils mel ni daf ko gàntal presse bi wala dafa làqatu ci ruqam jaral ko lamb ji jaral ko mu déplacé wu ba kër gi mu dëkk sax dem luyee beneen bërëb bis bi moo tolloon noonu général Malika moo tolloon noonu wala beneen Fils de la ñu gis non lamb ji lamb ji moo tolloon foofu rek moom lamb ji daa bëri coow diggante Malika ak Guèye dafa hmm. moo tax ji moo laajoon loolu rek loolu lañ ci namoon ah. Hmm. Hmm. lan moo waraloon nga bañ a génn def wax ju bari. man wax waruma wax waruma ci làmb ji ndax dama bëri mbër ñëpp ne moom man kon man jëf rek ma war jëf te man jëf laa doon def man xa kenn xamee wax. daxay wax nag. non man wax man jëf lañ ma gën a xamee ci biir géew. waaye wax nga de. man xanaa su ma wax dañ maa wax loo rek kon. Hmm. waaw mais man lan waral déplacé wu jógee bërëb ma yaakaar mbër ci bërëb bi mu dëkk. Mhm. fa la gën a am sécurité que mu génn dem feneen. lan moo waral génn bi dem feneen. loolu lu si dara génn si dara. non maa génn rek génn hmm. lu si dara. mi nga tuxoo foo dëkk. Malika. est-ce que Malika nga dëkk. si Malika Malika laa dëkk kañ. Malika laa dëkk mais ñoom xamuñu loolu. dégg naa ci wetu police bi nga def. parce que loolu dëgg la. no fils de Balla loolu ñeme woo naa la woon naa dem ba dëkk ci biir koñam. ma xam nga général dama ko xam te xamuma. Hmm. wala problème dama ko xam te xamuma moom moom ay fausse information la naan ay waa daa luwe lamb jee tax mu tuxu léegi laa ko dugal si ay sama waxu jabar ay sama doom laa yéene mag. Hmm. kan moo am doom te doo kan moo doom te doo doo doo ko tiitu doxante moom. Hmm. waaw mu sama doom sport la. am naa trois dox téye sama doom. Hmm. tey ñu ñëw ba bis bi nga xamante ne ci nga war a génn sa kër. Mhm. luñ doon lu wolof naan loo daan mbañ mu yegg si bul ko. jàppul bis bis bi jot. Fils de Balla génn buntu këram. gars yi sotti ko mu war a dem xare. te xamul dina am ndam wala du am ndam bi ngay génn sa kër nu mu def. ba may génn sama kër man da xam ne damay dellu soot ak ndam. Hmm. dañ koo teg fu leer teg ci ay coono. barki yàlla gaa yi sonn ci gaa yi fu nu dugg nañ fa fu ne. foo xalaat laa dugg nañ fa barki Serigne Touba foo xalaat dugg nañ fa moo tax làmb ji gisoo làmb ji démb. Mhm. dama dugg see confiance te xam ne tey làmb ji bisu sama bés la tey. ñu boot la nga wane ginnaaw duggee ginnaaw ba ci digg géew bi ñu teg la fa loolu la la. làmb ko laaj la rek. booy làmb ji lim laaj démb bari na trop gis naa mystique yu baree ba arsenalu mystique la fi sa bàlla indi lu la kër xamewut mm. sa gaay yi di sotti fii lii di xëpp fii gaay yi di. ay booy garaaw sax. wóor na yàlla dañ maa jox rek man sangul laa ci am man sangul rek laa ci am ñoom ñoo doon indi dama naa ma nii ak ñax ay sangoo nii ak ñax def. Hmm. mais démb démb sentir nga ni mystique feeñ na ci làmb ji. démb. Hmm. bari na de mystique bi moom bari na moom démb moom. feeñ na est-ce que. ah man de fooy sa feeñ na démb bëri moo fa feeñ de. yow mystique jàpp na la. man jàpp ma de. général mystique jàpp na. Ah, wóoruma. <laughs> waaw moom yow moom loolu de dëgg la moom. su ma waxee musique jàpp rek nga xam ne sama bopp laa xam ne xaw ma moom lu yaram. mais yow moom dara jàpp la woon. moom dara bi ngay dem ci biir moment bi combat bi di di waaj a taxaw ku nekk nekk ci débat débat damay gis en chaque fois da ngay daw ci ci ci général di am loo koy wax li nga ko doon wax mun nga ma ci mosal. non waxuma ko dara comme li xam ne ñu laa doon juumloo ñu doon wax général mënu mën da nga koo ragal. loolu moo ñëw ba ci kanam ma ne ko comme li nga doon wax léegi tey dëggalal sa bopp tey. micro. Uh-huh. loolu laa ko doon wax. sa bopp dëggalal sa bopp. da ko bëggoon déstabiliser wala loo gëmoon la. lu ma gëmoon la loolu la. ñuy womat di womat ba des ci diggi géew bi. Mm-hmm. général nga féete gauche général féete droite. Mm-hmm. nga teg pied gauche moom mu teg pied droite mu teg pied gauche. yéen ñaar da ngeen di dee xeexkat dañ naan xeex bi dafay neex. tux sa bënn saañ ba réer. Mm-hmm. ñëpp xamee la xeex indiwoo xeex. nga indi beneen méthode maanaam ñu séentu fetal nga fit. noonu la expliqué ma combat bi. xaw ma mbër yenn saa dañ lay séenee xeex nga ñëw bëri ñu xeex la bëri nga ñëw xeex. Hmm. ma pour bëgg woon ne la man dama mën a bëri. Hmm. moo tax ma fekk ci bëri mi. ci lu mu comme li ñu ko joxoon. aywa teel ma ñëpp ñëpp ko joxoon na ko moom moom bëri bi man xeex bi laa moom moom. Hmm. ma ñëw fekk ko ci bëri bi daan ko si. bi arbitre ne prip laaj la pare nga laaj ko pare na. mu ngay seetaan nan nga bëri moom. li ma bëree franchement li ma bëree nag kii moom Balla Gaye woo na ma téléphone. Hmm. ne ma nii ak nii ngay bëree. te li ma waxoon lépp conseil laa bëri ak ñoom Lamine Golo. Hmm. Lamine Golo tamit wax na ma ne ma nii ak nii ngay bëree. waaw hmm. ah, ndax dañoo bëree léew. at bi gën ma dox ci kawam avancé sax ci benn pas. bàyyi góos ma xam naa ne su ma ko cookaasee day ñëw. man ñëwul sax après ma maa dem maa dem. man moom attaquant la du ma xaar. Mm. ma dem jàpp ko song mu dóor ay hypercule ci suuf. hypercule mu ngi doon daal. dal na waaw. fan la daal. dal na si gémme si tuñ. Mm-hmm. mu dóor ma hypercule. mu dóor ma bàyyi ko ma jox sama kanam rek mu dóor mu dóor ko. Mm-hmm. mu fàqat ko ndomba. Mm-hmm. bi nga ko ci biir wër ndomba bi gis naa nga koy pomper dóor nga coup bari mais coup yi dafa mel ni dalul fi mu war a dal. wala loxo bi moo amul doole. kuy dal kuy dal dal mu fàtt kanam gi nga naan dóor. kuy bu doon dina fàttali ne garam gi coonc am na changement coonc coonc xam nga coonc woon nga si. non nekkul woon doon. non dafa maa la ma dóor coonc la ma dóor si nii coonc. la ma def. Hmm. damaa coonc. léegi nga ñëw ci pompe nga commencé pompe. pompe xam naa insuffisance yi mu suba hmm. bi nga ko jàppee di xool tribune bi mel ni kuy fecc. mu doon fecc moment boobu bu rëccoon lan ngay xool géej waaye. du tax. damaa xam durati fi ma ko jàppoon dafa dëgër fi ma ko jàppoon moo dëgër moo tax mënut a foofu noonu fii ba suba dafa rëcc fu ma fa egg doon nag fu ma fa eggee foofu mbër boo munti nekk doo rëcc foofu. Mhm. boo mbar ji su ma ko waroon sit bi ci ban moment nga ko daan. dama koy dóor caxabal. caxabal bi man gis naa ni bi ngay caxabal dugal nga tànk mais amul. bu ma koy dugal si lay arrière toogee nag. bu koy caxabal. toog am na fa. mooy si la si la caxawal bi di rocc ko muy muy muy teg lii muy dóor fes bi. Mm-hmm. Mm-hmm. bi nga dóoree caxabal bi caxabal bi bi mu rëccee sentir nga ko sentir nga ni caxabal bi ma buggoon tànn. parce que ñu bari jàpp nañ ni sant caxabal bi moo daanloo général Malika. mais mm. caxabal bi bokk na ci li ko. moo ko moo ko pantaloo mu toog. caxabal bi moo ko pantaloo mooy bu duggoon. da mm. daan jett mu toog. bu caxabal bi duggoon. Mm-hmm. day tëdd nii jaaxaan mais caxabal bi lu mu duggul moo tax. Mm. nga daan général. bi nga jugee lan nga njëkk a sentir. sentir mu dara man dama xam war naa daan keneen ku dul général man mooy mbër kaamil la war a daan keneen ku dul général général daanaka mën naa ne sax wa dina ma yóbbu fenn mais. man damaa gëm dama ko war a daan. non mais fils de balle combat tay ma dee nag nga doon bëree de. ñëpp ci làmb amul kuñ ci doon may 1000 francs ne ko tegal ci fils de balle mu teg ko ci. ba ji déggoo ma sa journaliste naa képp ku analyser làmb ne lu ma la waxoon rek da ngaa wax la la neex mais ñëpp favori bi. déggoo la ma wax man daanaka 5 pour cent laa amoon ci làmb ji. bu dee am nga cinq sax. waaw bu la <laughs> <laughs> tooñ. dama ko seetaan. ndeysaan. plateau yëpp yëpp dama koy seetaan. Mhm. moo tax ñëpp moom lañ jox favori ma gëm sama bopp ànd ak ñi àndal. Mhm. ñi ma war a jàpp jàppale ma. Mhm. bañ yàlla may ñu ndam. am nga ndam ci kaw général bu Malika. Fils de Balla fan la jëm. fu mu yi wax rek fa jëm. gaa fan lañu wax. laaj yi waxuñu sànq yow yaa wax. gaa yi am na sax gaa yi quelque ñu ma dee. Ah. mais ragal naa ni ñooñu moom dañuy neexal nii rek mais ñëwuñ faa dugg. wax nañ la ko xam nga ko waxat. la la laaj laaj leen laaj du ma wax kenn ñaan bàyyi jili boobu tudd. laaj leen yow kay boo amee fit li ngay woote dëgg la ci yow del diw laa soxla. Moussa Ndoye. non ñeme woo ko. ngeen di yara. Moussa ci saa Thiès lu jóge ah, mer la. waaw ah, dama bàyyi Moussa Ndoye Diène Kairé. Modou Anta non ñeme woo loolu. ñett leen Diène Kairé Modou Anta. ñett ñooñu ku mu ci amul du ma bëre waat. booy dégg naa sax ñu ne Lac roos tamit. ba ci Lac Rose baax la du ma fi nekk di du ma fi nekk di bëriwaatal sa benn booy du ma fi nekk di bëril benn booy. benn booy du ma fi nekk di bëri teg benn booy damaa sonn si combat choc yi combat bu ne tey laay dee maa ko bëri ku bëri daan Balla Gaye Junior daan Tapha Leer ñun ñëpp nga daan leen. Hmm. damaa mën a fi nekk di bëri ay risques du mu si dëgg sax. kon daal ñooñu rek nga soxla ci. yenn combat yi su ma ko naree bëri bàyyi bëri moom moo gënal du ma si sonnati. combat yu baax laay bëri dañu fay ma lu ko jar mu fay lu ma jar du ma bëri. combat bi nag daanaka métti woon na. ci yow mais boo xoolee combat bi. lu mu metti métti gis naa Fils de Balla préparation bi mu ci am. Mhm. ñëw naa fekk la fii. ce jour open press gis naa mbooloo géejawaay bi nu ñu taxawee. Mhm. gis naa la ci làmb ja mystique yi bari woon na te loolu yëpp moyen moo koy. moo def ci yan moyen nga nga sukkandiku. ñii ñu gars yi ñoo def seen moyen rek. gars yi ñoo si jàpp. Aziz Ndiaye maa ngi koy sant bu baax jàpp na si làmb ji fu mu xam dugg na fa barki sëñ Touba jàpp na ci làmb ji bu baax Aziz. Aziz men fu mu xam dugg na ma fa barki sëriñ Touba Aziz sama papa la sama lépp la dem na ko sax ba baax moom làmb boole tuuti moom. Mm-hmm. barki sëñ Touba fu mu xam dugg na fa Masada tamit waxi nopp Soro waxi nopp Badou Khalil Ndiak Pam Mama moom mention spéciale kooku Pam Mama. Mm-hmm. kooku moom bu loolu moom mu ñaaw ko waa Pam Mama. parce mm-hmm. que Serigne jàpp na ci bu baax fu mu xam dugg na fa. fu mu dugg na fa fu ne dugg na ci. Mm-hmm. yëkkati alalam def si. parce que Serigne Bamba moom aw ma fayam. jàpp na ci bu baax. waaw di bëggee tamit suñu président ASC bi tamit jàpp na ci bu baax ak ah waa ASC bi yëpp. jour yi maa ngi leen di sant bu baax. ba ne suba laam lu fii lañ ñëw woo ma di ma encouragé di ma ñaanal. waaw di leen sant tamit bu baax a baax. Hmm. mu mel ni euh, actuellement bëri ngeen ba pare. Hmm. sa diggante yaa général Malika lan moo ne ci diggante bi. non je moom wax dëgg amuñu benn problème diggante amul dara. woo nga ko téléphone. woo naa ko démb jotuma ko ñu day nelaw démb. ñu hmm, woo nga xëyee woo nga. non est ce que mais xam naa dinaa ko woo te dinaa fa dem seeti ko yóbbu ko drapeau bi. est ce que di nga fa dem. billaay dinaa fa dem. dinaa fa dem incha allah. tey boo ko doon conseillé moom général. donte sport moo leen boole woon. mais mm-hmm. yéen a bokk ndey yéen a bokk baay. du mm-hmm. ay noonu. Mm-hmm. boo ko doon conseil lan nga koy wax. su ma koy conseil dama ko naan ko mbër boo bëreetee mbër. da koy jox cër. adversaire da bu la joxoon ce que ci génn. ah mais non pour beneen yoon a ah, ndax xamoo sa morom sa ko lu mu indi. yoo xamoo lu mu indi. loolu li mu indi rek nga xam. moo tax booy bëri nga koy jox cër. da nga war a bëri ku mel ni fii sa bàll nga dem toog équipe nationale. naan danga nga dem toog foofu. Mm-hmm. di toog foofu naan fa ngay préparé yëpp mënu ma ne sax xaw ma lu ko mën a waxee. Mm-hmm. man loolu man su ma ko su ma nekkoon boobu sama gars yi duñ nangu ma def loolu. Mm-hmm. ndax du am combat capital. combat capital nga ko nga ne ñu ko jógee tamit beneen yoon dañ koy conseillé bu baax. di ko wax conseil na ko mbër boo amee combat capital. da koy fonk. ndax làmb ji combat capital loon jëm. Hmm. ku xool làmb ji dem lu mel. Hmm. te xam ne moom combat capital la. Hmm. loolu laa moo koy conseillé combat. na ko respecté jox borom cër. te buñ la woo équipe nationale ne leen sama combat ba ma pare. waaw. maa lay jaajëfal bu baax maa lay sant bu baax di sant sama gars yëpp. di bëggee waa amo bi. di bëggee tamit waa mafia deux roues bi. maa leen sant bu baax Aba maa ngi koy sant sonn na ci làmb ji. maa ngi koy sant bu baax. di bëggee waa Sax Ngom mafia deux robinet bi bi nga leen di tudd lañ romb. fan laa ñuy ñoo bëri coow. ñi ñoo bëri coow waaw kii maa leen sant waa Cheikh Ngom. Jogo maa ngi koy sant bu baax ñoom Ziggy. Alpha Pël maa leen sant mafia la Bawol bi. gis naa seen taxawaay gars yi sonn nañ ci làmb ji bu baax a baax. Mm. sama gars yi ñoom Fallou. Jéy seen maa ngi koy sant bu baax. Mm. jàpp na ci làmb ji Jéy ñoom ñëpp maa ngi bëggee ñëpp ñu ñaanal ci làmb ji. victoire sama gars yi laa ko may nag quoi ñoom Tafa. mais hmm. dama bëgg nga jëlal ma lii Tafa l'international. ndeysaan maa ngi koy sant bu baax. doon naa gis nga koy def SRT lu bari sama xarit la ak Ousou. ndeysaan Ousou maa ngi koy ñaanal tamit ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di bu baax a baax. Hmm. di bëggee tamit sama ñoom Wilane ñoom Pierre Tafa yaa. Hmm. maa ngi koy sant bu baax jàpp na ci làmb ji bu baax a baax Tafa yaa. jàpp na ci làmb ji bu baax waaw. di leen ñaanal ñoom ñëpp gars yi jàpp nañ si si daa bëri. Mhm. waaw alkayda daaru minam booy daaru minam yi maa leen sant bu baax a baax jàpp nañ ci làmb ji ñëpp bàyyiwuma kenn ah làmb ñi si jàpp daa bëri. Mhm. billaay di ñaanal ñi ma doon ñaanal ñëpp ñoo ñaanal ñëpp ci làmb ji. Mhm. Sérif maa ngi koy sant bu baax Sérif. Daaru Diouf Samba maa ngi koy sant bu baax. yaa nekk Italie yaa maa ngi koy ñaanal bu baax jàpp na ci son na ci nelawatul guddi nelawul bëccëg. Mm-hmm. chaque jour chaque instant damay woo. bu a ko yaa dalal sa xel damay daan. Mm-hmm. jàpp na ci bu baax a baax. barke sëñ Baam ñoom ñëpp ñoom Ouma nga Xaadim Mar Mouri Yaya bii bi képp kuy bëggee fils de Balla. Demba Kanté Lat mm-hmm. sama gaay yi ñoom Badou Ngom Ale. Galas ñoom Bébap Ismaïla Male. ñoom ñëpp ñoom Ndaama Abdou Sefa gars yi ñoom ñëpp jàpp sant naa leen bu baax a baax. di sant tamit sama dëkkandoo yi ak ñi doon togg tamit sama mag yi. ñi doon togg sama yaay yi. maa leen di wax masa coono affaire dafa métti woon mais maa leen di sant bu baax a baax. Mm-hmm. sant naa leen ñoom ñëpp. waaw bàyyuma kenn jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbokk yi Fils de Balla la woon ginnaaw ndam bu rëy bi nga xamante ne jot na ko am ci digganteem général ak Mali général Malika muy mel ni làmb ubbil na ko beneen bunt ñi muy laaj ci làmb yaakaar naa ni ay naataangoom lañ ci làmb Fils de Balla bu daanee général laaj Moussa jaad jaadu bu daanee général laaj Modou Anta jaadu na Fils de Balla bu daanee général laaj Diène Kairé jaadu na yaakaar naa ne ñi mu laaj ñëpp